Des belles Day puissants et stylés, des soins qui vous ressemblent. Dream. Dini d'une Dal, moi c'est New Year! 102.3, le nouveau son. liggéey bu nekk nag liggéey naa ko waaye liggéey bii nga ma sant bokk na ci liggéey yi ma gën a jaaxal ndax man mësumaa gis doom juy takk baayam xala ma bëggoon laaj lan moo waral loolu. sëñ bi li tax ma def ko am naa sama ay raison fii lépp loo gis ne di ko def rekk am na lu tax. dëgg la. lépp lu ñu def am na lu tax bu dee ko def ngir lor nit na nga jàpp ne sa yaay ngay njëkk lor te liggéey bi nag def naa ko ba pare dindi ko du yomb de. Oh, sëñ bi xam nga la laa lay xamal sa wax ci boppam mooy bëgg bari tamar samay mbir àndul ak wax yaa ngi may dégg kenn xamaluma dara noppi nag laa la laaj. de gërëm na la foo fekkewul te jàpp naa ne bu aawa yëpp meloon ni yow benn borom kër du sonn ndax kii xol bi dara new ci nit ku baax ngi nii ku yàlla gërëm moo tax sax doguma la moo tax ma ne la bal solo bal suma ko sa jikko ji solal dala bal solo bal ko sa jikko ji solal dala <laughs> te ya, daa fi ngeen fële daal neex na neex na yëg nga nu ngi gërëm di la sant ndax nan fekk nga la tafa te ba boogaañ mooy loogu waaye logo fekku ko si waaw kenn na masu kaa àtte nag kan mu ngee daane fii masu fee daane kon nag nu ngi gërëm di la sant jërëjëf amuñu fay jërëjëf sunu tànk yi mm-hmm. dox couleur la ak feddal couleur suñu ak yow a ah, sa jëkkër de gërëm na la foo xam ne fekkewoo ko ba tax na lii am am na waaye ànd ñu ci ñun ñii ànd ñu ci nee na noo ba sonn imaam na sii ca lañ wale dee séem jooju ndax kilifa la warte wax ñu ciy teg baat dëgg la ah ba tax na nga bësanteeg sa xol a ah. fa dëgg yàlla de wutal nañ la rek rek mel ni. daal maanaam daal utal nañ la wujj. ndeysaan ndeysaan. wallaay bett du bett de. xol bi dara gis nga moo tax ma papa waxoon na ma que nee ma yemel nii ah. da dem brusquement rek wax waa ji. wallaay wallaay wallaay day daan hey. ay ay. xay jàmm miin ba jàmm yéen yéen seen lépp ñëw na ratatati gi pour lan la bu kii jël e bu leen ma fontoo du ma seen moroom gis nga li ngeen yëkkati nii wan nanteel ko fu nga ko jëlawaat ngeen delloo ko fa imaam moom du kër la muy lëmbe mu def sama kër gii yéen am ngeen fit de yéen daal di jaay moom ñemewul ko wax yéen ma koy yeggee bu dee fit ngeen jaay maa leen ko pële maa gën a capable maa ngeen coupable gën la ngeen osé gis na ñeenti pop yi ngeen di gis dur leen ma ngeen ni mukk du mbax lay def xang la ma ci set seen soxna sa samay nawle lay xol ngeen ma ka bu suuf ah. nur na ko ñu ñaa mukk ci aduna mukk ci aduna alma numéro imam waaye yoruma numéro yoruma jóg leen ci kaw jogal yow sa ay ni dafa tank rek eh ma nga jog romb leen ma eh romb leen ñi ma gis. lébu eh ah. rombal. lu ñuul mi ne koy tënji kii moom ma ni góoru taaxuraan bu kii waxee kii jël. oui. princesse. comment tu vas. toog. tey de gerte laa la indi. ah merci. wala màdd nga bëgg <laughs> Jena yow doj nga de. sa damay laajte rek. <laughs> Man nga bëgg jiñ ëmb. Hmm. Gerte bi baax ba Waaye yaa ngi tëju rek sa kanam bu triste bi. Non du dara t'inquiète pas. Ah. Waa fi nag tey dama bëggoon ñu waxtaan. Waxtaan? Mhm. Mbaa jàmm? Jàmm la ak salaam. D'accord, je t'écoute. Depuis bi nga duggee si kër gi ba tey fi mhm. Gis naa ni ngay dund. Mm-hmm. amuloo benn affinité ak ñun da ngay tëju ci sa néeg doo waxtaan ak kenn di triste même sam papa su aayewul si yow sax ci sa néeg bi doo fi génn ah Jena damay bañ rek ñu ne gan bu bees bi moo fi indi problème moo tax ma toog fi nga xam ne leer na ma kenn du ma fa fekk kenn du ma tooñ itam rek la du leneen de gan ban gan mais yow bi nga duggee ci biir kër gi nga bokk ci ñun fi gan sukkee na nag yaa ngi ree sax xam nga moom moom mooy saraxu kër gi bëggoon naa nag nga comprendre ko xam ni xale la xelu xale moo ko jàpp te nag d'une part danga koy comprendre ndax neexul nga nekk ci kër sa papa takk wujj boo xamante ni moo ki yow ñoo maase xol bi daara nekku ci Nafi nitu kase la te man dinaa waxtaan ak moom bu baax waxtaanal ak moom xam xamal ni ko xale la daal na hmm. yem place am. ci su fa yemee rek non dinañ sekk jàmm daal gënal waxtaan ak moom gën koo soññ rek jàmm dina am. dinaa waxtaan ak moom bu baax yow nag moom hmm. gis naa ni nit ku baax nga gis naa ni ngay comporté woo ak man ci biir kër gi. Hmm. respecté nga ma bëgg nga ma teg nga ma sama place te heure bu ma jullee nag li ma leen njëkk ñaanal mooy sa sëy bii. yàlla boo ci gis dara loo dara loo ragal. amin amin li nga ci bëgg yàlla na la ko yàlla may. allahumma amin amin surtout nag nga xam ne sam papa amul doom bu góor yàlla nga ci taaloo ay seex yu góor ñett sax bëgg nañ. vraiment nit ku baax nga moom ku baax nga ah. waaw. yow do nitu dara yow suma xamone doom ram nga duma la expliquer dara sama vie pour nga jubaale ma ak sama dom jàppale ma nga dem wax yef souleyman vilipande sama vie bi yëpp ci deuk ci aduna bi wax souleyman bu mu àkki sama keur di wax luma neex ak luma nakadi naqadi eh du sa morom lama beug nga déglu bu baakha baakha baax bu mu fonto han ah, yow ya ñew ci man wax ma sa problème pour ma lijjanti la ngay ñew dima ma wax ay wax xamul mag mu tolli man tok sama keur souleyman fekk ma fa di wax sama tele ta xam nga la laa bëgg nga xam ko nak sama digënté yow bul ci créé nono xam nga luma lay yëgël bu dee sa télé bop mo la nakari da ngay faju ci wala nga mat sa bakken yaa ngi dégg té gis nga Souleymane mom ngay dugg ci ay 18 am mo la gëna capable gënda bandi té xolal xam nga wax ji lan la sax man sama bonheur doom sama bakken la ci teg té fu mu yam neex sey bi ci bopam lay tass est-ce que yaa ngi may dégg bu baax may wax ngay chantage ak lijjanti koy euh, menacer yow tu te prends pour qui fay da boo bëgg dé pa bu toll ni yow nga top sa bopp. wala la ba nga xam ko. man wu ma leen man may gaynde dama leen lijeenti man. fi bi. ma fifi paaka fii du palaasam. sama yaay moo doon nekk fruit yow. waaw bu noppee nga delloo paaka bi ca ba saal kenn du ca baay paaka ah déedéet waxuma palaat bi paaka bi nga yóbbu ca waañ wa comme noppi ngeen ci ah saal des ci bàyyi paaka wóorul waay lay na nga def xibaar bi de xanaa war nga see jot xibaar gi waa agsi na. alhamdulilah rabbil alamin. xibaar gi moom. agsi na. alhamdulilah rabbil alamin. waaye leen de laa lay yëgal. ñang baal ak yow. daa mel ni guddi ak bërsët. maanaam. yi ko mën def ak kay la ñang ci am pour wax ah, man de xam nga lu la bëgg wax asuma mainan nan ma ko ci farata ak Muhammad te incha allah ngon dina fanan ci fi ci kër gi ngon gan ngonu tay ngonu tay ji ci kër gi inshallah ah ni jaay dafa wax ak yow yott yott nak dina fanaan si dafa jox wax ak yow dafa jot yo ñi di gën takki ba paré nga na yaa war a mu ñu say si dëkkandoo yi nan la dégg de nañ ma dégg jaay dafa ah, da ngay wax ak man di taxaw baña taxaw nañ ma dégg jument fu ñu dégg ma da ngay wax ak man di taxaw mané loolu gëna sedd ah bu dee rusu takki rus yo kan nga jigen yo ngay takk te ba xol bu ma waxu eh, jigen naa jigéen jar bu ma wax waxu jigéen laa la wax. Ah. yow kan nga yab. waaw man ngay tàcc. bañ a tàcc. Ah, yaa ngi bëgg yow eh xool du ma sa ah. nee naa la ji ñang baala jigu la. jigu la nijaay Tafa. wax ki na doy. ah léegi rus naa la de. man dama laa rus man. rusal xale sama yoon dafa nekk ci xale yi. ah waaye yow rusuma benn xale laa wax. yaay wuy ma yaay. rusal xale yi ah. yow kan. bàyyi la ma waay yéen. lii de moom du jur jàmm lii. Hmm? xaw ma loo ko def nag te wan la leen gaynde la. xam nga lu ma la bëgg a yëgal yow hmm? xale day wax yi xale balaa yem. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va madame. alhamdulilah. alhamdulilah. am na am na. ah am na nag eh, amul amul tey. Ah, amul am nga ndam naa. amul amul ndeysaan amul tey tey kay dara amul tey mais jaay ak bandi xëpp wuyu rek fii nga ma fekk li nga xam ne wuyu bandee bàyyam walla salaamaaleykum waaleykum asalaam jaay soo ko bee bi demee kaare ni ko noon liɗi soka fee diwal ko ci xanaa moom daal déggul xam naa waa ji déggul waa ji ba baax xanaa dañ ko déggul nag gaawal gaawal gaawal xam nag de tey jii de moom waaye da moom kay ok merci est-ce ok lebu man duma sam rom yang yang may bëgg yapp lebu da nga fassu contrat bi xana ah suma ma diga di ko nga nek fi di liggéey mo won lool. Ndeye Fall Ndeye calmez-vous. non ah Ndeye man sa kilifa la ma. ban na ni rek Ndeye nga commencé ma menacer ni te man lamu bon bon bon man kilifa la ma si dëkk bi bama ma ginda koo fii ah lebu ngi lebu ngi. eh ah? dimbali ma. boo nekkoon kilifa duñ la jox xaalis pour nga yóbbu sa kër nga yóbbu feneen xam nga laa bëgg nga dimbale ma lépp te moytuma moytuma de baax na maa ngi xaar nag ba kili ñëw fi nga am ko oma mayonnaise wala oma thon wala oma chocolat seeg nga kafe gi baax nga kénkili baa bi maa ngi ñëwaat léegi kër ga maa ngi ñëw léegi yabaat boo bëgg naa ku ñëw rek ku ñëw rek am ku ñëw rek am Eh, na suñu ma ma oh yow de. yow tamit. en tout cas ce que me plaît dans la vie mooy tubaab bu def tay baas. neex na ma te gis di la ci ay mais morom. tamit xam nga ne loolu ci yow man rek ci yow la yow it. ci sàkkara ah yow tamit. jaay sàkkara yàlla waay. ah ah yow ya, ya, tamit ini nag laa bëgg nga Ila la fonde. oh. Ini kenn du fonde. moom xam naa bi, doo ko naan waaye fonde spécial la nyam koy di doli, ñamal rek. en tout kudu benn kuddu laa ci de di doli nga nan ma kudu, kuddu. lu nekk yaa ma koy lo loolu Hmm. ne. nga Hmm. Mew mi bi benn meew la. yow dano, rek. Dano. wow. Mau itu dek bi fu ni. toll nii. dano. Ha, bahna. Betul. Cairan. Kurma balla dera ta tegal ma fi dano bi. Wa. Ki de du yow. Yow de bo suuron tay famu fo Kontan. Hmm. Jagar jagar di kër gi. Tay mom wana aw bur Kontan kalau sakit ya lebih de rek. Op op op. Menak bulu bu Hmm bëggoon naa ñu waxtaan. ma jàmm lu xewati. coow li bari na trop wax ji bari na te wax jigul bant sàkkantuma ak doomu aadama. waaw loolu dëgg la. da ngay mag te mosuloo am doom su ma soñoon nga jóg ñu ut ay protection pour sunu bébé bi dem ci maamani ut ay gàllaaj takk ko yenn yi nga sangoo ko pour mën ci mucc ndax fii Sénégal la dañu am sunu baaxu maam. waaju ba yàq nga jotaay bi. ci naka. ma def samay dégagement sama jaaga jaaga rek yépp nga may wax sa waxu dofi encore li nee la bul ma ko wax du ma ko def c'est hors de question. nee la lol bu ma ko waxati. yow nit ni dañ xaar da ngay xaru fi senegal la. yow bu fekke da ngay xaru nga xaru mais xale bi il faut ñu protéger ko doomu senegal du doomu tubab il faut mu takk ay téré dama ko deful dégg nga li ma la wax sa waxu dofi yi bu ma ko waxati. gis nga na fi sa problème yi daf ma teree lekk traitement nelaw keroog bu sa papa déggé may wax ak Serigne gagne lu nekk la wax. mais bala may am jàmm loolu dama koy lijjanti te maa ngi ci kawam nii waaye ba tey nii nii nii maan dara léegi la làmbaay gën a ay gis nga li nekk ci biir sax yow xam nga ko duma la ko nettali wante li ci biti manta sonn naa du jàmm du salaam du wax ju neex jàmm ju ndaw sax bi ñaari nit war a sekk awma ma ko ngay dégg ñii di gaaruwaale fii ñii di jéem a tongoo benn nit de moo fay jàmburu yàlla muy jeyna bi may ñëw ci mariage bi man gis nga fit bi ma àndaloon ñëpp wax man pare naa lu ma ci góobee gar ko mais man jàppuma woon ni problème dina toll nii wala coow dina toll nii ante sës naa nafi sa malaise yooyu moo nga war a stress yow kër ga kenn yabu la fa ta am nga ful la ci sa bop kon da ngay changer stratégie nit da ngay muus kumba sek nga jël ko taf ko ci sa bop bu boba do am bena problème parce que mo la mak tawam sax mo la mak nga bëgg ñew sey ci si defante ak mom mais yow sa jëkkër du nekk sax ci jamm boko jëlé nak taf sa bop nga def lima la wax bu boba, même problème bu fa amé sa jëkkër du xalaat ni yow yaa indi problème boobu ah damay defal loolu. waaw li nga wax yépp wax nañ ma ko lu baax li nga fi wax ak lu baax li nga lu rafet li nga fi def lépp jot naa ci dama la ciy sant di la gërëm di la ñaanal yàlla nga gudd fan loolu te ànd ak wér. amiin waaye lenn daal laa bëgg daal ñu def ko fi ñu nii kër ga tàng na kër ga saa soof kër ga tàng na jër. déedéet kay. xanaa xamu ni euh, bokk jëkkër bokk wërsëg la rek. léegi laa rek kër ga tàng na jër. kër gi kay imaam soo bëggee dégg dëgg pour ñu muur ndaw si mu dem tey faaw nga jóg. wax dëgg yàlla de boo xel yi de dana bett ndax Layla am na diine Layla yaru na. jigéen ñi xamuñu ko jigéen ñi seen yar weesu na ci boo leen takkalee wujju moom dootoo gis seen yar man daal li ma bëggoon moo tax ma ñëw nii moo ñu ànd kër nga remorqué ma ñu dem ci kër ga nga wax Layla. Layla déggal na ma. kon togay amul. jikko ngi dem remorqué ma ñu dem rek. déggal na ma remorqué ma rek ñu dem. no déggal na ma. déedéet mom dal nan dem rek. inshallah ñu dem nan dem rek ñu dem. entrez alaykum ma ko sana mën na dugg. ñëwal. Donga. naa er- ah tey de bëggoon naa ñu waxtaan. ndax bi ma seysee ba léegi. coow li bari na loolu ci biir ak ci biti. ci biir moom mën naa ne xelum xale rek moo ma ko yóbbee. ndax fii cër bu ma amee ñu ma ko war a jox ñaari jëmm la muy sama jëkkër mi tax ma ma fi indi tey ak sa jëmm ji toog. ndax lum bon bon mag nga ma te bu ñu toll ay at sax sa ginnaaw lay jàll rawatina na bi ma ay at sa doom kon mën naa ne yaay laa la war a jàppee moo taxoon euh, coow bi yëpp maa ngi jégalu bu wer di la ak jégal naa la te li nga def nii tey ji jégal la rek laa mën def man moom duma la mës a jàppe wujju doom rek laa lay jàppe bët booboo moom laa lay xoole ni ma jàppe ñoom sukkee ne nii ci kër gi noonu laa la jàppe kon nag comme noon nga wax dangay jéggule bëgg ñu baal la lépp lu fi xewoon ak lu fi am lépp ginnaaw ay jàmm lépp bu yàlla may bàyyi lépp mu sedd ci kàttanu yàlla waaw. Ah. Ah. kon baax na waaye bëggoon naa ñu waxtaan ci leneen de. muy eh, takk xale bi dal sama jëkkër te ñu ma koy ciñ gëm naa ni de man mii seet bu bees jóge sama kër bàyyi ñëpp pour ñëw sëysil ko ndax bëgg ko doon xale bu ndaw nag tagguma sama bopp de wante mel ni ma war a mel xanaa awma benn intérêt di ko takk xala moo taxoon ma bëgg benn dut boo ko ci maa ko def wala defuma ko rek nga xam ni fekkewu ma fuñ koy lijjantee yëguma tinuma fuñ koy waxee loolu daal laa bëggoon leerlu que lu ci war rek nañu ànd doon benn bu jaree faj ñu faj leneen lu mu laaj tam ñu def ko ndax nañ ko waxte dee de wante wéram suñu arrangement la ñun ñaar ñëpp kon ñu ànd moo gën topp wax ci nit moom boo àndandoowul doo mën a def dara ñaa moom li ko dal feebar bu ko dab rek la waaye du lu mujj duwaale ndax ñaa moom fasu naaru góor moo ko raw te ñaa def na fi lu ne sa jëkkër def na fi lu ne macha allah. yaa ngi may ni yaa ko gën a xam de. ëpp na xanaa feebaru ko dab rek. ñaa li nga wax noonu ñu àndandoo faj ko dégg naa ko. bu sooba yàlla dinañu def loolu ndax loolu neex na lool ci xool te dinañu ko def amul benn problème waaw feebar la rek te day wér du noonu surtout maa yow man mii di xale jeex na mi ngi ci kaw ma àgg ci kaw ba ci jeex na nañ jàpp ci loolu merci ma Nafi aywa yaay ki ma rombante léegi nii ci biir néeg bi fi mu fi noonu def xanaa wut jàmm nag. jàmm waaw wow ginnaaw ay jàmm. waaw kii li mu def tey dama cee kontaan surprise nee na ma dama bëgg ñu juboo lépp lu amoon ci kër gi ak coow beeg xeex beeg yépp ñu teg ci suuf mu jeex tàkk lii la wax xeex nag day jeex histoire dafay jeex dégg nga. yow yaay kii bu duggee si biir néeg bi di la wax ne dafa bëgg jàmm day wax lu ko neex kii na xam ne bu mu dugg see si biir kër gi la kër gi tas barki Demba Ndiaye la fi loo xeex ak man. tey mu ñëw ne la jàmm la bëgg nga ci ànd ak moom. Ah, ok. yow daal da ne da nekk benn yaay Seyda rek lu ñëw nga dékk ko. Mm. merci Soukay naa wax nga wax jépp man maay yaay Seyda maay toog maay gérer maay def lépp ana sama biolaay bi ma la yónnoon jox ma ko. andi fi ne nii jàmm rek. la paix. waaye lu jëndaloom bu mag bi. bii laa fekk. ah bi day gaaw a jeex mënul nga ma jëndal bu mag bi. انا سال بالدوش بي كيف نشوف والله ولا مسخن ما يمكن اه bi moo ko amulee man bu ma ko sangoo rek sama yaram bi day xasan dee ma arrangé xëpp neex bonjour bonjour bonjour ça va yaa ngi Ça va bien. Ça va bien. ça va bien dinaa la gis alhamdulilah ana sukay toogal bébé. <laughs> Non, non. non euh, non ah, Bien Bien, ça va bien ça va très bien. ça va ah le monde est Roger. Ah, ça va. ça va très bien Ça va ça va la ah d'accord ça va. ça va bien. られませんし。Acho me torve. Ok, vou dar mais chuva. Dá como? Quer nem chuva? Ok. Então, Hoje meu só vai feliz lesita te ver. Tá bom? Bora lá. looy def sa kanam nii dama wax ne que li ñu la wax dem moo tax nga fas sa kanam nii de. j'ai pas le droit. Hmm. yow li ma def dem noo ko mënee. waaw def. comment est-ce que tu peux réagir comme ça de la sorte. yow kii jóge fee kenn xamu ko mais Soukeyna faut que tu comprennes que man je veux du sérieux avec toi. j'ai fait exprès ñëw fii gis say parents gis naa sa sœur gis naa sa yaay bëggoon naa fekk sa pap sa moom gënal je suis en stade boo xamante ne man am na yoo xamante ne mënu ma ko concevoir xale bu jigéen bi jóge fee kenn xamul fu mu jóge ñëw di rabbi rabbi am. Ah, sama kaw bu ma dagg waaye sama yàq. am yoo xamante ne je le conçois pas te bu mu ñaar man je suis pas ce genre de mec là nga xam ne dañuy uti fu nekk gal di fa dugg ak jéen dama toll foo xamante ne je veux me caser et c'est avec toi que je veux le faire moo tax je fais tout ça donc am na bu mu ñaar que ce soit la première et la dernière fois yéen yi di am yaa ngi may dégg. je suis désolée. Voilà, la xuloo de jeex de. bon bu weesoo loolu j'ai quelque chose pour toi. sérieux. Ah, <laughs> c'est gentil. Je t'en prie. bon, écoute, euh, moi, je vais pas là, je vais pas tarder. Lila, Jaron, Jox, vite faire Guy, ça pareil. Demain, je. Ouais, il y a mon commandant, lui, il n'a pas Ben, tu vois, ben, У нее не надо. Ой, да. Хотя, уезжаем.

J'ai coupé les ponts avec moom Souleymane nan nga bëggoon ma def ko man yaay laa yaay bu ñu nangu doomam aw ma woon solution ñaar rekk laa gisoon pour gis pour jege sama doom Souleymane man ak yow bu ñu booloowee kenn mënuñu daan ñu tas suñu sëy doom bi ndax yow ak man lu ñu song daan ko munoo dem sans man munuma dem sans yow ci benn komba suñu ànd dañuy mel ni ay rabu àll bul fàtte ne dom bi man ak yow ñoko jur té mom la concerné ok tu as parfaitement raison bi ñuy dara xatul won sama diggante ak yow ay gaynde lañ won ci Allah dara mënul woon yàq suñu diggante diggante la bu dëgër waaye yàqat nga lépp benn arme la ñu amoon muy bii moom nga jox ñaa léegi conséquences yi moo nekk nii léegi lu ma ciy defaat dama ko gisul gisuma luma ci wara Kai. defaat su kay kaay yaa ya? ngi nah nah toog yaa ni rafet merci dama bëggoon nag ñu waxtaan ci hmm. digënté yaay ak do xam nga yow sama xarit nga te bëgguma dara lo xam lu la metti hmm. la sa gan gi fi ñëwoon tay ji vraiment gis na ci mom dal nit ku yaru la te nit ku silwise la te nit ku yiw la waaye man li ma ci jaaxal mooy rose bi daal moo ma ci jaaxal loolu rek moo ma ci jaaxal te yéen xam ngeen ni seen pàpp dugg génn bii du ko nangu lim ma fekk ci kër gi sax mooy jàmm ci mais tey bu ko fekkoon histoire dina am te guddi yi ñu toll dara umpalewu leen li may dund ci kër gi lu ma wax muy jàmm seen papa andil ma ay te nag balaa wax ji di egg ci moom man ma lijjanti ko man mi wax ak yéen man mi seen yaay ndax lu ci am man mii la koy wax ay problème bu ci am rek danaan man la te loolu laay bañ te man guddi yi ma toll li ma nekk doy na ma sëkk sëkk te man bugguma benn problème boo xamante ni daal jóge na ci yéen di ñëwaat ci man parce que problème bu ci am seen papa danaan man la te loolu laay bañ ba tax na ngeen war a régler bañ maa indil problème te beneen bi mooy jéy naa wax na ma ci waa ji wax yu garaaw yoo xam ne duma la ko nettali ndax su ma la ko nettalee mën naa indi histoire seen diggante. yaa ngi ne ba dafa la wax dara ci Roger. waaw Dieynaba bu la waxee dara ci Roger dafa nekk di wax lu ko neex ndax Dieynaba dafa napp Roger te Roger xoolu ko man la tànn loolay dagg xolam. te nag yaay wax ji ba bés bu ko sam papa déggee man dinaa assume sama amour ci Roger ndax Roger nit ku baax la nit ku correct la yow sax bañ ko bañ na ko ba wax nga ko sa biir wax te Roger li ma des si moom jamono jii gisuma ko ci beneen góor yow nag yaay waroo woon toog di déglu jeena ba di yàq deru Roger sa kanam loolu waroo ko bañ. du ko bañ ndax yéen ñëpp laa yemale sa mag la boo waxee dama koy déglu waaw. man génn mu moom mooy génn ñoo xam li nekk ci biti en tout cas daal wax naa la li ma xam man. jëla say responsabilité fexeel ba bu ma indil benn problème comme noonu nga ko gisee baax na dégg nga ma bu baax. dégg naa la lan rek moo ma xaw a jaaxal ñaar soxna nga am yow. man mii. waaw ah wax dëgg yàlla de benn soxna laa yor. benn soxna. def naa yow ñaar ñett ci yow la jekk yow mi di imaam yël suñu góor koñ yëpp kàcce bi yëpp dajale leen takk ki ñaar ki ñetteel ki ñeenteel yow ko yaa waroon takk yow mi yàlla jiital ci ñu topp sa ginnaaw nga war am ñaar am ñett lii nag nam ma ko yàgg depuis daaw yaa ngi ko doon raam raame mi ngi door a sotti nag rus naa la nag lool. bu doon keneen la dina demee neneen du dul nii. fi ne benn jege fii daagu muy man mii ay muur jabar mu di fii xel xalaatu ko te muy sedd te muy rafet nag nga jóg abal ma sama kër ci biti sëy si moom du fi imaam nga baal ma maa ngi jégalu. yow nag Layla benn mbir laa la bëggee gal gis nga ko xamul buur saay na ñu ne la buur dee na. yaa ki rey buur yow. waaw jee asu takk nañ ko ci farata yàlla mu sunnas Muhammad kooku wax gu yàqu la te dina sëy ci ci biir kër gi. ak nga pare fii benn jege fi daagu muy man mii muur nga jëy as mu ci biir kër gi muy muur nañ la fi daaw lañ. naam nangoo mu sëy ci kër gi ma jël ak jëy astu ak samay bagage ma génn kër gi. <laughs> waaye def naa ko pare te incha allah dina sëy. kooku sa affaire benn wax nag laay wax te wax naa ko ba pare. wax gi daaw mun ma ko nga baal ma dem muural ma mu ñëw ci kër gi. yow dem muur nañ ko mooy fi daawal nañ la une gamme complète de soins révélateurs d'éclat à la fleur d'hibiscus. Vibe Radio, c'est surtout la musique qui cartonne. Radio. Vibe le nouveau son.